coronavirus ak mboolem xew-xewu diine yi ci réew mi kenn wumpulewul ne fépp foo xam ni boo fa sànnee mbàtt mu takk takkal li ma lay bëgg a wax ak fu mu mën a doon ci àddina ak ci jamono ji ñu toll la mu mën a yokk ci mbat ñu ëpp fuuf la mu ca mën a wàññi muy màggal di gàmm mbaa sax popo ngin nañu xam ne ak lu bës rëy rëy day jàll te ñu ko yàlla waaye wopp si moom mën naa wéy di fi def ba kañ laaj la bu mbindeef tey ci àddina amul tontoom naam askan way feebar te askan wi ci boppam ñooy màggali ñooy gàmm ji képp ku ci dem kenn werantewul ne jaral na la ko waaye jàppal ni boo fa jëlee feebar bi mbaa nga yóbbu ko fa tooñ nga sëriñ bala taxoon a jóg ndax ñoom amuñu dara luy lore kon képp kuy waaj xamal ni addiye bi jiitu nga war koo ngànnaayoo mooy sa masque ak say loxo yu set dandante di sorianto moom bu ñu waxantee dëgg mënu faa am foofu ca Touba xalif général ba di sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru sàkku na ci ñëpp ñu sàmmonteeg digley fajkat yi ku ne xam na ni budul woon yërmandeem ci taalibe yi xam seen xër ci sëriñ Touba Xaadim Rasul la màkk te yonent bi ko fu la mbas fekk toog fa moo am foofa ci Touba lépp la ñuy tëj ku ne màggale fa nga nekk rendi say gàtt bexndeel say dëkkandoo am sa màggal màggal gi ren pas-pas bu wér la laaj bu ko kenn réeree na ko ñëpp xam te nguur gi itam baña a toog seetaan naan suñu yoon nekku ci ñoo ko sombi nañ ko naan nañu jël seeni responsabilité ñoom kilifa yi fexe ba ni ñu ko waxee ku ne ak sa masque doon lu law fépp ndax fëgg ci taabal ji wax ko yomb na waaye jëfe ko mooy lépp solo mu bañ a mel ni diggante waa orange ak ARTP mbas mi bëgg a rey nit ñi orange dikk bëgg leen a dogali àddina yëpp ci teg seen i gët mais orange faale wuñu ARTP jël forfait jox askan wi di leen ko jaayee Illimix te benn pexe amu ci ndax wër nañu ndomb réew mi ba wiiri wiiri jaari yi muy téléphone fixe di connexion mu baax mbaa mu bon ñoo fi ne wax ji di ndax président de la république dina ko seetaan amaana seetaan na lu ko raw fuuf di grève waa SYTJUST bi di liggéeykat yi yëngu ci wàllu yoon fii ñu toll tembe am na ñaari weer seen grève boobu maître Malick Sall ministre de la justice taxaw fa mu taxaw ñu ànd ak maître Aya Boun Malick Diop taxaw fa ñu taxaw te askan wi dong ñoo ko yëkk waaye du ñuy dab prisonniers ya nekk ca kaso ba ba fi mbas mi tàbbee ak tey amatuñu visite la ñuy daj mburu daj ko ca taal ba kenn seetiwu leen mu mel ni dañu leen tëj ba pare damm ca caabi jë nañu leen bàyyi xel te di leen dimbali ñu mën a gis seeni i mbokk sonn nañu te mënuñoo wax ñu wax ca la xew Mali coup d'état gàcce la ci Afrique jàkkee la ci démocratie ñu ñaan yàlla mu yem fa te bañati faa am wasalaam ba beneen conférence